نبي خلافة ملكية حلى آدمي خلاف الشيطان الرجيم بسم الله di wax ni ñaan yàlla suñu borom ci kàttanaw mayam mu gën ko yàlla defal ko mu am ci lu kawe njortam yal na ko yàlla def barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag euh, dañ fee teewoon tey jii ànd ak euh, sunu jigéen suñu rak sunu xarit ku ne xam ko ci ginnaaw le ministre Abdoulaye Diouf Sarr mu nekk koo xamante ni le président de la république daf ko jël dénk ko li ñuy wax euh, santé mu nekk ci di ci liggéey liggéey bu am solo nekk koo xamante ni nag suñ rakk ji ñu àndal di Ami Collé dafay liggéey ak moom euh, mu jox ko nopp nag euh, di déglu aussi ay conseil am xam naa dina gën a feeñ ci biir waxtaan bi ñoon ci sunu maam euh, di ko ñaan ndigal xam naa ni sax damay introduire rek bàyyi Ami Collé mu ñëw ci li nga xamante ni solo mooy solo daje bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dañuy bàyyi Ami kole moom mu nuyoo saafante mbooloo mi wax ak maamam ñaan ko ndigal. asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi sant yàlla bu baax di ubbi kàddu yi di ko teg ci ki fi yàlla teg muy sunu papa di bàyyi Abdourahim Seck toog ci seesu maam Amadou Ndak Seck bi. ni ko sama doom ji waxee yàlla na ko yàlla na yàlla nangoo ñaan gi noonu yàlla na fi yàgg te wér macha allah projet yi moom ci dëkk bi yëpp yëpp yëpp nag yàlla na yàlla sutural ko ni ni mu ko bëgg ci xelam di kontaan rek ci sama doom ji euh, muy soxna Ami Collé njaay mi tànk yi mi dox nag man na maa wax ni tànk yu yu yoo xam ni daf ko daf koo donn daf ko donn ci way juróom muy El ma Madické Ndiaye euh, mooy lépp luy jëmi cene ba kanam ma dikkee da cee daw ba jeex takk am ci ay résultats yu yu yu kawe yu kawe kon nag tey bu doomam jógee taxaw ñëw ci kanamu maamam sëñ Baye Abdourahim Seck di di ko di laaj ndigal ah ndax mu mën a yëngu ci développement cene ba yaakaar naa ni kon léegi moom dono donoom rek ci la ci taxaw ami ko nag xale la jigéen la waaye ku am jom la ku am ambition la ku am vision la maa ngi ko ñaar yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax yàlla daal dogal nag di euh, seen bàyyi di jógee daf ma leen dénkoon ndénkaan li nag xale yi wax dëgg yàlla manqué luñ ci dara dara dara man maa leen ñoo ma gën a bëgg doom yi ma jur macha allah déglu nañ ma duñ dugg dara dara loo xam ne waxtaan luñ ceeg man laaj sama ndigal xalifa bëgg dem la ma am waaye audio boo xam ne boo diggee seen day daw kon nag ami maa ngi lay ubbil sa kanamu maam li ngay dox yàlla na yàlla barkeel ko yàlla na indi Thiénaba Ndiaye lu rëy ni nga bind seet yi mooy cena ba ami euh, ami ami Collé Ndiaye ngi ci ginnaaw Diop euh, Abdoulaye Diouf Sarr mi ne moom yàlla def muy la santé mu am gis-gis nga wan ko fulla ak jom ndax nag loolu ngeen doon seen bàyyi nag nit ñi ji fulla ak jom la ngeen doon seen bàyyi ak bëgg a taxaw Thiénaba yàlla na yàlla may lu kawe sa njort Ndiaye yàlla na ko ubbee ak bismillah rahmaan rahim jeexal ko alhamdulilahi rabbil alamin bàyyi maa ngi sakku nga ñaanal sa sët bii te boo ko ñaanalee dina nangu maa ngi koy dénk itam nag monsieur le ministre na xam ni kii de mooy canaba ah waaw mooy tiwaawan waaw ndax boo ay nijaayam tiwaaw lañ dëkk ah maam sëñ Mansour si maamam direct la maam amandaak maamam direct la kon doomu tiwaawan doomu canaba gi na ko jàppale macha allah lu mu def rek defal na ko sëñ canaba dëkk bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbooloo mi di jiital nuyoo bi sama maam sama maam sama sëriñ maam Abdourahim sekk di nuyu sama maam sëriñ Jibrilu Seck fi toog di nuyu mbooloo bi ma àndal yépp sëriñ Ibrahima Seck di nuyu sama pap may pap waaw di nuyu ma àndal ci depuis ci liggéey bi maam tey nag dama fi ñëw pour euh, ndigal ñaan la ndigal pour ñaan aussi nga ñaanal ma ci benn activité bu ma war a organiser euh, samedi bii di ñëw ci ndigalu ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ma nekk di liggéey ak moom sama digganteek moom sëñ bi maam dara ump la ci xam nga lépp waaw muy koo xam ne daf ma wóolu am ci man confiance pare di ma jàppale te yow maam yow xam nga si dara si loolu lépp waaw léegi nag ma bëggoon nga ñaanal ma ci activité bii ma jëm yàlla defal ma si ndam parce que Diouf daf ma wax que maa sa ginnaaw xam naa ni Thiénaba moom rek moo war a ñor te nee naa lépp lu dëkk bi am muy lu baax dama ni man Thiénaba da ci war a am te ci loolu tànk yooyu noonu ci laa nekk te Ablaye Diouf Sarr pare na pour jàppale ma ci loolu jox na ma ay matériel pour poste de santé bi jox ma moto te loolu nee na ma commencement bi la rek parce que Thiénaba mérité na lu ëpp poste de santé muy centre de santé hôpital bu baax te ja pare na pour taxaw jàppale ma si joxaale na ma tamit ay produits yoo xam ne dama koy distribuer population bi muy ñu ma ciblé école yi ak centre de santé maternité ak yenn comité célébrité yi nettoyé dëkk bi waaw maam man ma la ñëw nag sa doom tey di la ñaan nga xam ni man taxaw naa bu pare pour canaba rek moo ma ñor waa léegi looloo ma taxoon a jóg waa maa ngi sant nag di gërëm sant presse bi parce que xam naa ni canaba rek moo leen tax a jóg pour développement canaba gis naa seen taxawaay ak ñi ma comité bu ma àndal ñii ñëpp ku ci nekk yaa ngi ma jox sa xalaat ci bës bi naka lañ koy defee ba mu réussir di woo ñëpp nag di woo ñëpp di sant di gërëm incha allah jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah. barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi ànd ak ziyaara di nuyu mbooleem ñi fi daje ñépp nuyoo bi ñoo ngi koy teg ci loxol sëriñ bi. di ko nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla dolli ko wér ak mboolem njaboot gi yëpp nuyoo bi ñoo ngi koy teg ci loxool sëñ ji bi di jëwriñam ñoo ngi koy nuyu moom it di ko ziyaara di ko jox wàcc waayam te di ko ñaanal yàlla Baye Youssou Ndiaye yow it ñoo ngi lay nuyu ndax ami kolem yi yow yaa di buntam ñoo ngi lay nuyu di la jox sa wàcc waay te di la ñaanal ami kolem ñoo ngi lay nuyu ah, di nuyu ñi nga àndal ñëpp. Ah, ñëw fii ñoo ngi lay nuyu ci nuyu ba gën a seet la ah, di nuyu presse bi yéen ah, di leen nuyu bu baax Ami Collé li nga def moom nga war a def ndax bu yàlla defee ngay doomu Thiénaba ci côté yëpp yàlla def nga ngay ngay nekk ci euh, ministre de la santé di di di ko jàppale ci liggéey bi ba mu am confiance ci yow te yow dara ñoru la lu dul ba kon nga ñëw ni première activité bi may def dinaa ñëw ba ci sama maam mu ñaanal ma kon loolu dañ koy rafetlu ndax tamit nit ku ne daal il faut mu am kilifa te yow lii wane nga ni sa maam mooy sa kilifa ndax man xam naa ci lu bari ndax kilifteef gi tey waralu ko kilifteef gi démb la woon ba ba tey jii muy rafet ñoo ngi ñaan yàlla yàlla gën la cee jàppale ba mu gën di rafet ah ndax lii nga def nag day bëgg-bëggu Baye Abdou Baye Abdou dafa waxoon ni man li ma ñor mooy ku xool Thiénaba euh, da ngay téen te lépp nag moom du ko man wande ci ci waxin wi ni mu ko doon waxee mooy njaboot gi kenn ku nekk day jàpp fa nga mane di indi kon foo fu waay jàppee ci ci ni nga mane indil ko kon mel ni moom moo def loola kon moom mi ngi la ci sant ci loolu mun la loo jàppoon benn nga gën a góorgóorlu dolliwaat ko ndax cana ba li mu soxla dafa bari kon kenn ku nekk mbir mi xaj nga ci kenn ku ne fa nga nekk jàppare nga indi sa morom fa ne bu mu doon ak ba kon mi ngi la ci encouragé ci loolu ngay wax nekk ci démb tey doog di ñëw mi ngi la ci encouragé di la ci ñaanal di ci ñaaxaat sa yeneen morom ñi ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen ciy ñaax lépp lu waay mën a indi muy muy muy loo nga xam ne lu baax la luy jariñ canaba la jox na la ca ndigal ca loola boo ñëwee nga waxtaanteeg ñi ngi ci war a waxtaanal xëcc indi tax yow it ba nga ko commencé ba léegi amul dara luñ ci umpante foo ca toll wax nga ma ko man ma ko la ma ko ca war a wax ma wax ko ci ba tey jii kon mu ngi lay sant bu baax di la ñaanal yal na yàlla gën laa jàppale Euh, sa diggante ab Ablaye Diouf Sarr xam na ci lu bari ndax ab Ablaye Diouf Sarr ñëw na fii mu dugg ak moom ba ci néeg bi woo la ba nga ñëw mu jàpp ci sa loxo teg ci loxoom ni ko kii dama bëgg nga nga jàppal ma ko dimbalil ma ko topp tool ma ko loolu man ak yow ak moom ñoo newoon ci biir ak sëñ Seex kon loola moom sa diggante ak moom xam na ko moo ngi la ciy ñaanal nag confiance bi mu am ci yow ak yaakaar ji yàlla bu yàlla tas yaakaar jooju yàlla yàlla dimbali bañ naan madame la ministre yàlla mën na ko yàlla na ko def góor góorlu fexe tege ci lu baax politique nag dafa doon loo nga xam ni euh, ni koy nit ñi doxale ak ni mu war a doon dafa bokkul politique njariñ la xëcc ci njariñ ji indi ci sab gox waaye du xeex du xuloo du waxante lu ñaaw sëriñ bi bëggul wax ju ñaaw sëriñ bi du jëf lu ñaaw sëriñ bi du encouragé ku koy def képp ku nekk fii ci Thiénaba na nga fexe ba war may ba tënk la bu la war may cana ba tënkee nga xëcc indil cana ba kooku ku ko def rek sëriñ bi d'accord na ci yow jublu na la bëgg na la ndax moom jàmm la bëgg te jàmm lay woote jàmm ci la nekk ñun nit yi cana ba dañoo war a gën a xamaat sunu bopp gën a xamaat sunu bopp gi mooy cana ba daa kenn ku nekk ci ñun dalaa dogal am mbubb soo génnee rafet nag ci sa jikkoy bopp la ndax nit koo nga xam ne foo génn danga war di doon làmp bay leerale kon yow loo wax war naa doon lu rafet warna don doon lu baax ba nga xamni so waxe safan ba sax ñu ni ah yow de dëkkoo ba lolu ci nit lay doon waye du ci ba kon na ngeen ci gën gor lima yow dal lima lay e, ñaax moy lo rafetalon dolil tege ci yoon bul wax ju ñaaw bul def lu ñaaw yalla moy jappale te yalla na la jappale lolu dal la am ci luma lay wax dila la ci encourager dila ci ñaanal ci kaddu serigne bi lolu lepp muy sa maam di sa xarit mi ngi la ci encouragé nga gën a góorgóor loo góorgóor rek doyul asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dégg naa leen bi nee na dégg na leen gis na leen. ngi nuyu na mi ngi nuyu itam kilifa gi jiite réew mi. moo ngi nii itam kilifa gi mu tànn fab wér gi yaramu réew mi teg ko ci loxoom. nee na tamit mi ngi nuyu kilifa gi mu tànn fab wér gi yaramu réew mi teg ko ci loxoom. kilifa googu itam xëcc la ba taf la ci eh, wetam. nee na kilifa googu la ba taf la ci wetam. maa ngi maa ngi lay sant boo ko gisee nga ni ko sama maam nee na. nee mi ngi lay sant boo ko gisee nga ni ko maamam nee na. sa kanam mi sa ginnaaw. nee na mi ngi ci sa kanam mi ngi ci sa ginnaaw. mi ngi ànd ak yow. nee na mi ngi ànd ak yow. te di la déglu te di la jàppale. te di la déglu te di la jàppale. sa digganteeg moom nag. nee na sa ak moom nag. lu mu la wormaal doyul. lu mu la jàpp doyul. nee na lépp lu mu la jàppi doyul. ndax fii ma toog. ndax nee na fii mu toog. sëtub Amari Ndaag. sëtub Amari Ndaag. moo nee na moo ko fi bàyyi. waaye yow itam. na waaye yow itam. foo mën mën a nekk. sëtub Amari Ndaag nga. sëtub Amari Ndaag rek góor geeg jigéen gi dong laa la nee na góor geeg jigéen gi rek la la gañee. kon lépp luñ la sédd. man mii lañ yow mii moom mii lañ ko sédd. may itam. nee na moom itam. li nga xam ne bëgg. nee na li nga xam ne moom la bëgg. wax ko di ko dox. wax ko ba pare di ci di ko dox. dama leen ni woon geneen canaba gu bees laa bëgg. dañ leen woon geneen canaba gu bees la bëgg. kon képp koo xam ne kii. nee na kon képp koo xam ne kii. sama mission boobu yaa ngi ma ca jàppale. nee na mission boobu mu yaa ngi ko cee jàppale. dinaa la yëg. dina la yëg. dinaa la gis. dina la gis. dinaa la bàyyi xel. dina la bàyyi xel. tey yow kat. nee na tey yow kat. kenn gënu la jàpp. kenn gën la caa jàpp. ndax teraanga yi nga indi. nee na ndax yi nga indi. néewoo njaayeen nga koy dugal. néewoo njaayeen nga koy dugal. da koo wàcce fee. da nga koo wàcce fee. nga xam ni ñëpp am na fa soxla. nee nga xam ni ñëpp am na fa soxla. ndax ku feebar. nee képp ku feebar. sa xel dem fa. sa xel dem ca. sa xalaat euh, dem fa. sa xalaat it dem fa. ña lay taxawu dem fa. ña taxawu dem fa. kon ñooñee ku leen indil tiraanga. kon ñooñee ku leen indil tiraanga. man mii nga ko indil. nee na moom mii nga ko indil. waaye ku ma ko indil. waaye ku ko indil it. réew mi nga ko indil. réew mi nga ko indil. kon daal sa kilifa yooyee. kon sa kilifa yooyee. maa ngi leen di ñaanal. maa ngi leen di ñaanal. maa ngi lay ñaanal. mais nee na mi ngi lay ñaanal. yal na ngeen ko gën a tal. yal na ngeen ko gën a tal. yal na ngeen ko gën a man yàlla na ngeen ko gën a man daraja yonent bi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Baye Youssou jërëjëf Baye Youssou Ndiaye jërëjëf di la gërëm di la sant nee na mi ngi lay gërëm di la sant yaag Serigne Mbaye Sarr Ndiaye yaag Baye Mbaye Sarr Ndiaye yéen a séq njaboot gi yéen a séq njaboot gi waaye nag Mbaye waaye nag Mbaye yaa ko gën a woyof tànk nee na yaa ko gën a oyof tànk. mbay yanu. ak la nga yanu. ak la lépp yaa ko yanu. nee na na yàlla gën laa sàmmale. yàlla leen a yàlla gën leen a taxawu. ñun daal sunu xel dal na. nee na ñun daal sunu xolit sedd na. képp koo xam ni kii. képp koo xam ni kii. mel na ni yow. mel na ni yow. di yanul cana ba teraanga. di yanul cana ba teraanga. di ko indi. di ko indi. dinaa ko gis. dina ko gis. dina ko xàmme. xel. dina la bàyyi xel. yal yàlla taxawu leen. yàlla taxawu leen. daraja sallallahu alayhi wa sallam. يا الله يا خادم يا مولد يا خادم يا امين يا رب رأفة ملكية